Tawfekh multimédia Kara Jolof agricole vinaigre Manjara au plaisir lëkkaloo ak Kër Ndaanaan TV ñoo leen di ñaanal màggalub jàmm. wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa maolana muhammadin makin wa ala alihi wa sahbi zawi ridwan wa tamkin wa salaam wa rahmatullah ñoo ngi lay delloo nuyoo soxna ki ne di ziyaar waat baax te di dalal. Mhm. d'accord comme ni ma ko waxee rek ñun sànq dañoo demoon ci penc ma gis ni ñuy séddalee nag yi ñu ñëwaat fii gis ni ñuy séddalee ravitaillement bi. déroulement boobu nan la demee. waaw ginnaaw ba ñu santee sëriñ bi ñaanal sëriñ Saliou Ndigal Thioune mu yàgg fi loolu te gën a wér ñaanal sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke moom sëriñ Saliou mu yàgg fi loolu te gën a wér tey ñaanal sëriñ Mountakha Mbacke xalifa général ku lu murit mu yàgg fi loolu wér. waaw séddale bi de xanaa ni mu demee moom daa tëdd rek sa organisation ndax sëriñ bi eh, liggéeyam bi lépp loo gis am na ñum mu ko dénk Euh, lu mu si mënti doon am na ñu ko jiite di ko saytu bu dee si wàllum séddale bi moom ñi nga xam ne ñoom ñooy joxe ticket yi euh, ki si jiitu mooy jawrin Ibrahima Mbuub nga xam ne boo ñëwee doon daara yow jawrin ji yaay ñëw ñu jox la sa ticket ticket bi dañ siy def euh, li nga war a am si nag sans dépense mbooloo mi nga jiite nu ñu toll bu dee daar ji daa laaj ñu jox leen ñaari nag ñu jox leen ñaari nag. bu dee daara ji dafa laaj ñu jox leen ñetti nag ñu jox leen ñetti nag sans dépense yi mbooloo mi nga jiite rek bu ko defee boo ñëwee moom da lay jox euh, sa ticket nga dem si gétt ga soo demee wone ticket bi ñu jox la li nga war a am si nag lii sa cër si bis bi soo noppee nga ñëwaat fi ñuy séddalee condiment yi euh, fekk jox nañ la it ticket boo xam ne moom la ñuy def condiment yi li nga war a am moo xam si ay saako soble la wala ay saako pomme de terre ak lu mu mënti doon bu defee nga dem si ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yor euh, ñoom it nga won leen ko ñu jox la sa cër moom liggéey bi daal noonu la tëddee noonu lañ ko organiser. Mhm. léegi pour bokk si loolu dafay laajte nga joxe xaalis wala pour na nga doon na doon euh, ku jokk ci ñoom rek noonu laa bëgg ko. waaw boo gisee nag yi moom mooy li sëriñ bi jënd ngir sant la sëriñ Tuubaa yàlla ndax sëriñ Tuubaa bi mu wootee bisam bi. muy bisu màggal gi dane ku man lu tàmbalee si ginaar ba si gëlëm na ko def ngir santale ma si yàlla jëf ji nag euh, taalibe yi ñoo ko jëf ànd kook sëriñ bi ndax sëriñ tubaa moom képp ku mu mës a seexalit boole laak mboola bokk ne si jublu ba mooy mbooloo mi jëriñu si jëmmam ci ndax lay jëriñ moom sëriñ bi moo ko yor ndax dane nafaan nii wobiyee yan fanal waraa sun borom jëriñ na ma te si man mii lay jëriñee mindee fi waaye ku ne xam ne ne eh, benn jëmmu day tënku loolu bokk na si li sabab sëriñ bi daan seexal nga xam ne ku sëriñ Tuubaa mës a seexal day jël si mbiram def si yow ku la topp di jëriñu na mu waroon a jëriñoo bu toppee sëriñ bi noonee eh, nga xam ne seliñu seex yi seex yi dem ànd ak taalibe yi sëñ Béthio daan ko ànd ñun ba tey boo mu làqoo xalifaam bi ànd kook ñun bu màggal jotee ku ne dangay joxe ñuy jëf bu jëfee ba màggal gi des ay fan sëriñ bi dem jëndi ay nag ku ne gis ne bi weesu ni moom moo demal boppam ba Murtani jëndi ay nag ginnaaw ba mu ñëwee duggaat si biir réew mi wutiwaat yeneen nag dollu si nag yooyu nag moom lay jël di ko jox taalibe yi ngir ñu sant si bis bi ak di yóbbu si sancaan yi ngir ñuy togg di joxe te xam ne loolu mooy ndigalu sëriñ Saliou si bis bi noonu daal la yëf de ñu ngi lay jaajëfal bu baax kàddu yi am na solo te na nañ wax dëgg yàlla. donc comme ni ma ko waxee woon sànq rek xam nañ ne tànk xam nañ ne yoonu Serigne Touba tànki kanam rek la am te woon naa leen tamit duñ leen bàyyil dara yéen ñi nga xamante ni ñëwoo leen wala mënoo leen a ñëw wala am ngeen gàllankoor wala jote woo leen si lépp ñun ñoo leen fi nekkal yéen a ñu ñor incha allah lépp loo xamante ne xam na ci màggal gi rek dinañ ko teg si sa si taabul bi képp ku dib jullit rek képp ku dib jullit di wax ashadu allah ilaha illallah ashadu anna muhammadu rasulillah màggal gi ñor na donc mbokk yi nañ leen continuer rek ci euh, wàccaayu màggal gi wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman Tawfekh multimédia kara jolof agricole vinaigre manjara au plaisir dëkkaloo ak Kër Ndanane TV ñoo leen di ñaanal màggaluk jàmm